ah bon Futurs Médias du ay foo du ay caaxaan <laughs> du ay foo du ay caaxaan salaamaaleykum asalaamaaleykum. maaleykum salaam. te ngeen dégg dégg. asalaamaaleykum. salaam. mais kooku kan la. Jamaïcain borom jam production. Jamaïcain borom jam production sama doom. waaw père maa ngi lay ziar. maa ngi laa ziar bu wér a wér a wér naka yite yi. sant alhamdulilah. lu dëkk bi wax. waaye sant yàlla bu baax a baax a baax. instant yi fan la la jant bi tiim. jant baa ngi may tiimee fii ci réewu Adama Baro di Gambie. ah kon yaa ngi Gambia. waaw maa ngi Gambia nii dëkk Adama Baro. soo gisee lu tax waxuma dara boobu ak léegi. Mhm. dama noppi. dama bëgg nga ñëw ak man ci sa deuxième journée. Mhm. le 9 mars lay doon mhm. muy drapeau commune bu Mbambilor ci njiitalu Ngagne Diop le maire mhm. Franc ak bébé euh, Saloum ñooy bëri grand combat bi combat mhm. spécial bi liiru jaan ak wuli wuli waat seen combat ba lëjoon Gàmbi fii lañ koy lijjantee bu ñu noppee ci loolu nag Mm-hmm. nga ñëw ak man ci mburu yu tàng yeeg xoyam xoyam yi nga xamante ne ni taxawal nga ko ñëwal ma mm-hmm. naar naar yaa ngi Sénégal yëpp a nga lay déglu te man du ma poser question sax dama lay bàyyi nga wax. waaw père maa ngi lay ziar dina nuyu dina ñuy suivre Futurs Médias yëpp. Mm-hmm. avant tout lamb dafa nekk si tiis di sunu kilifa ci lamb. di Aziz Ndiaye sunu grand soxnaam wàññeeku ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin fi mu jëm gënal ko fi mu jógee. di nuyu kilifa di nuyu kilifa aaday rawatina sunu waa kër muy waa kër Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu waa parcelle un ba vingt six di nuyu sama papa Karba bu baax a baax waaw comme li nga wax rek ñu ngi jëm ci la huit mars le huit mars nag bis boo xam ne la ci histoire jigéen ñi ñoo ko moom ñu wàccee tëgg ban combat Franc ak Bébé Saloum wuleeg liiru jaan bi nga xam ne mu ngi lëndëm ba tey ci xelu askan ñi fa yéene koo indiwaat foofu pour mu leer mm-hmm. ko jox nag bis boo xam ne la sargal jigéen la sunu papa Ngagne Diop di meeru Bambilor mhm. ne moom moo ko fas yéene jël bés boobu noonu xool jigéen ñi nga xam ne nii def nañ jaloore ci réew mi mu jël ko jagleel leen ko ak askanu Bambilor ak tundu jandeer beeg yépp mhm. moo tax ñu ngi waaj lu rëy mhm. pour Bambilor ndax ñetti drapeau la jël jëlal ko boppam ci loxoom ne biir commune la koy joxe waa commune am gunge ko waa goxam gunge ko pour mu fas yéene def arène nationale loo xam ne kenn musu ko def. tam moom moo tànnal boppam ñi nga xamante ni nii ñoom la war a tuddee bés bi balaa émission bi di jeex dinañ wax ñan ak ñan la. waaw loolu moo ko tànnal boppam di wax ne jamono ji moom mooy ballon d'or africain Sadio Mané mooy Ngagne Diop. dëgg la. maa ngi koy nuyu di njabootam gi yépp dëgg la di ko wax lépp lu mu yéene bu mu am ci réew mi yàlla nag ko yàlla defal ndax fekk jeune buy góorgóorlu nga fas yéene teg ko loxo jàppale ko. Mhm. loolu ko baax ko man ak borom xol bu rafet. dëgg la. Mhm. léegi. waaw jam dafa am coow lu am ci réew mi. Mhm. coow lu mag lu am ci réew mi am na ñoo xamante ni sax nee nañu. jamaïcain mii kat dafa feebar. li ñuy dégg temps yi ci coow. ci ay combat lan la ak fan nga ci toll ak yan combat nga bëgg taxawal. wala danga nga bëgg wax rek nii pour mu neex. non père yaakaar naa diggante démb ak tey fàtte xaju fi man wax naa ne jeune laa dama ñëw ci làmb ji di góor góorgóorlu. Mhm. nekk jeune rek tëgg combat cinq cent et Mar loolu doy na bës. Mhm. te yabuma askan wi tamit di wax loo xam ne nii nekkul ci man wala mënuma ko wala mënuma cee dugg. Mhm. comme li may wax nag yor un milliard tëgg combat cent millions du ndam ndax sa poche a diis rek. lii ndam mooy nga yor dix millions tëgg combat cent millions mu yegg ci jàmm ñu naan mënoo ko nga réussir ko loolu mooy ndam. Mhm. te ci kattanu yàlla lépp lu ñu diggante ak askanu ne lii la ñu def. Mhm. dinañ ko def ci ba mu yegg ak jàmm ndax ñun mënul ko def ñoo jig sama première journée bi ma woowee manager bi bëggoon combat bàyyi ma doon góor a soog bi ko woowee def na ma booy xamal sa bopp du sa morom. Mhm. waaw yàlla def ñu tëgg ko mu yegg ak jàmm. ñu ñëw stade bi ba mar tëgg mu yegg ak jàmm. ñu ñëw Gambie li ñu fi def barki Demba Ndiaye ñëpp gis nañ ko. mais balaay loolu dama dégg dama gis léegi ci internet bi ñu ne yow danga taxawal France ak leket combat bi nga xamante ne mooy dara jaay euh, combat Modou Lo ak Balla Gaye ci Gambie dëgg la da nga ko taxawal. loolu la yàlla dogal ñaari ménagères yaa ngi nii maa ñoom ñoo toog ndax combat boo xam ne la fii ñeenti at a ngi nii promoteur bu nekk bëgg nga ko mënoo ci dara. taxaw na taxaw na. taxaw na ñaari ménagères yaa ngi ndax démb nee naa la dinaa tëgg quatre journée yu mag. leket mi ngi noonu waaw. dinaa tëgg quatre journée yu mag. waaw day yi day am Gambie day yi day am Sénégal démb ci ngoon wax naa ko sa émission. waaw. yàlla nag dogal na ñaari ménagères yaa ngi nii Mohamed Soumaré mi yor France mu ngi nii toog Alaaji Keba mi yor leket mu ngi nii toog. dina ci ñëw léegi dina ci ñëw léegi comme France ak leket taxaw na taxawal nga ko Gambie loolu moo la fa yóbbuwoon mais Sénégal fii lan nga bëgg a taxawal. Sénégal fii li ma fi taxawal mooy combat càppaacoli bi. mooy kan. bi askan diggante Balla gay 2 ak Boy Niang numéro 2. yow mii. man Jamaïcain père. yow Jamaïcain non jox non xoolal damay jóg taxaw de ma ne damay taxaw ci kaw. waaw Jamaïcain yow nga ne lan yow. père. waaw. Balla Gaye numéro 2. waaw ak booy Niang numéro 2 fils de De Gaulle. xale bu ndaw boobu xale bu gàtt boobu yow moom. waaw père dama ko waxoon barki démb nee naa la. waaw. malaaka buy rocc ruu gaaw na lool waaye buy indi xewal yee ko gën a gaaw. dëgg la. <laughs> te tali bu ñu mënee déparé Dakar di daw ba Touba ci autoroute à péage. waaw. partenaire a ko waral. dëgg la. partenaire yi war mën a tax loolu am nag tey ñoo taxaw ànd ak jamaykee te loolu day am day tëgg Balla Gaye 2 ak Boy Niang. yow mii ko bëgg. père man la jamaykee borom jam production. bu baax jamaykee ban jamaykee bi tëggoon euh, liiru ak wulli yow yow yaa nga ne yow yaa yow fan nga teg ni yow da ngay taxawal euh, euh, Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 fan nga ko teg d'abord. après ñu soog a ñëw ndax waxtaan nga ak ñaari camp yi ba pare. fi ma ko teg d'abord mooy wax naa la ko dama ne làmb man nii xale waaye làmb Sénégal situation yi mu toll idée bi ko mën a suqali mu mbëri di fay ko ay 500 millions promoteur de perte mu ngi sama suufu armoire. i dama ne. waaw. làmb Sénégal situation bi mu toll. waaw. mbër di fayee ko cinq cent millions promoteur du ko yaakaar ci sponsor du ko yaakaar ci billet idée yu koy def mu ngi sama suufu armoire maa ngi ko fa teg dossier yi. mbuusum xale mu sol yàpp mag. waa yow da nga waxtaan ak waa Kër Balla Gaye. démb loolu yow euh, dañ am nekk ci tiis. waaw. yow sax xam nga ci lu bëri ndax yow laa délégué woon côté boobu. waaw. ndax sama papa nga du ma dugg ci loo yëgul. dëgg la. ñoom dañu nekk ci tiis tab bori mënul ànd ak Maty Lem. dëgg la. ñu ngi leen di ñaanal. Mhm. tiis boobu ñun ñëpp ñoo ko bokk ak ñoom. mais yow Balla li muy fayeeku ëpp na cent millions de am nga loo fay Balla Gaye yow. xam naa li muy laaj dama ne la Balla Gaye lépp lu neex askan bi askan wi bëgg ko. waaw ak Balla Gaye lu mu defal làmb ak li ko làmbu defal. waaw Sénégal duñ bëgg dara moo xañ leen ko. waaw waxuma la ak man mii nga xam ne maay promoteur mu bari ok ñu bàyyi côté Balla Gaye Boy Niang foo toll ci moom. Boy Niang ñoom. quatre vingt pour cent. waaw taxaw na ndax combat boo ko ñëwul ci këyit rek mënoo taxaw ne taxaw na. waaw. waaye waxtaan nañ kàddu gor yoo xam ne gëw mën a dara dina ko dindi. yow ak waa Kër Boy Niang waxtaan nga ci kan nga waxtaanal ci waa Kër Boy Niang. Abdou Kandji grand frère Tafa Kandji ak Kandji production nga xam ne lépp Boy Niang ci loxoom la nekk lu mu wax loolu la Boy Niang wax. yow waxtaan nga ak moom. waxtaan na ak moom. juboo ngeen ñu tënk tënk ay kàddu yu wóor. su ma jógee Gambie nii mardi ci kàttanu yàlla. waaw ah? waaw soo moytu dama naan la père kar foo nekk àndal la caméraman bi. <laughs> tàccooli waay walal <laughs> ku maa wax loolu man nga ne mardi. dama ne su ma jógee Gambie ci kàttanu yàlla. waaw. mardi fexeel ba bul fay sa téléphone bi. yow nga yow nga signé loolu. boo gisee sama appel ku kuy nekk ci ligne bi coupé ko jël ma dama naan la nañ dem signé ji combat bi. mais Balla bañ na lu lu lu ëpp téeméer ak li ci topp cent millions ak li ci topp Balla bañ na ko man xam naa lool ci diggante ma booy Niang. xam nga loolu dama ne la. waaw. Balla Gaye li muy laaj. waaw. partenaire yi taxaw nañ te dañ ko koy jox. ku ko àndal rek waa BMG Property sama papa Ndiol Dieng. waaw. Kéba Jammeh Suède. waaw. ñoom Tidiane Kébé boxeur international. waaw. Ah? waaw. waaw. lu ma lu ma tëggul rek maa amul fit wala man la neex. <laughs> mais ci biir rek ngay yem parce que danga ma ne woon quatre affiches ngay tëgg taxawal nga benn gambi yaa ngi waxaale um, uh, uh, Boy Niang ak Balla Gaye lu ci topp. Tapha Tine Bombardier. waaw boo xam ne la askan wi yëpp a ko bëggoon. waaw. te fii ci gambi lay ame yow mii. waaw. diggante Tafatine Bombardier. waaw. xam nga li ma ci nar xam nga li ma ci bëgg. man xamu man bu ma xamee it askan wi laa bëgg ñu xam rek. askan waa may dégg Bombardier mag moom am na ci benn combat bu ñu commencé woon pour discuter. waaw wax ci. waaw yàlla def magam wàcc liggéey ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. waaw. waaye guddi yi amateur li ñuy laaj mooy revanche ba fa amoon. waaw combat bi amoon mooy diggante moom ak Tafatine bi lamp yi fayee Demba Diop. waaw lamp yi. waaw moom nga bëgg a moom la askan wi bëgg di ko laaj waa Gambie di ko laaj sama fas yéene leen koo indil fii jox ko président de la république Adama Barrow. sax kon sa ay partenaire ñoo la koy yóbbuloo Gambie. ñoo ma koy indiloo Gambie fii ma indi ko fii mu nekk bés boo xam ne histoire da koy bind. ak ban. père. waaw ak ban. guy gi moomu toog. waaw. ci plateau bi. waaw. ñëpp gis nañ ko ne grand contre petit moo am ren. waaw. ndax Balla Gaye 2 nangu na bëre ak Boy Niang waaw ndax combat bëggoon nañ sori lu yàgg ñu dégg ne Balla gay nee na du bëree ma dégg ci Baye Ndiaye discours waaw mu ne Balla Gaye pare na waaye promoteur la ñu gisul waaw kon Balla Gaye cent pour cent askan wi ñu bëgg dara mu xañ leen ko pare na pour bëre ak Boy Niang Modou Lo ak taxaw na waaw guy gi Eumeu Sène bu Eumeu Sène pare combat boobu tamit dañ koy tëgg ñaar yooyu Sénégal lay am <laughs> eh man eh kii du Jamaïcain de xaara sala allo allo Jamaïcain Jamaïcain waa père mooy jamaïcain bi nga xam ne jamono ji amul sax oto bu mu dawal jamaïcain la. <laughs> père. wallaahi xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal. billahi laa ilaha illa huwa jënd na oto bu bees tàq maa ko booleeg transitaire bi ko koy dédouaneel maa ngi waat ci alxuraan. waaw loolu nag. defal ndànk maa maa ngi waat ci salaatu fatiha. ken warul sax toog di di waat mais jënd na oto bu bees tàq maa ko booleeg transitaire. bi ko koy dédouaneel mais jamaïcain partenaire yi dañ laa jox xaalis nii. père mardi bu ma la woowee bu ma ne la kar loo loo téye bàyyi ko. wërsëg a gaaw. waaye yow non damay non damay wax ba pare kan la ciy liggéeyal waa loolu yëpp koo ciy ban télé nga ciy liggéeyal euh, kii nu mu tudd mba mbaa daan te mbaa daan TV wala. jamono. mooy ban dem ci àdduna ñu ngi leen di mooy ban. Télé Futurs Médias. ñëw <laughs> gàddu def ci super de base rek. Jawike. nga ne ban télé nga ciy liggéeyal. Télé Futurs Médias bi ñëw Gambie def ci sept de temps direct amul tagg amul dara moom laa ciy àndal. Jamaïcain. waaw fàttaliwaat ma combat yi. <laughs> wante ngi loxo combat yi mooy. ki may waxee ak nii France lekkat ñaari ménageurs yaa ngi nii taxaw muy combat boo xam ne bëggoon nañ ko quatre ans fii ci Gambie. ok. mooy Balla Gaye Modou Lo Sénégal. waaw combat boobu. moom rek a mën a sayt ak stade Bakaw bi bañ tëj porte yi. ak kan. boobu féetee na boor. waaw. beneen bi Balla Gaye 2 Boy Niang nga xam ne ni combat bii mel Gambie tey noonu la mel Sénégal. waaw. beneen bi Bombardier. Mhm. ak taxa Tapha Tine borom takk ci rek. Uh-huh. beneen bi guy gi moomu toog. Hmm? nga xam ne mu ngi tàllal loxo Eumeu Sène. Hmm? comme grand contre petit la ñuy wax na nakaara di mat. guy gi ëmmat seen boobu buñ paree pare na. <laughs> non su ma la waxee message bi ma jot léegi Ibulaay nee na borom pro auto nee na mbaa du dala si ngay fayee. waaw <laughs> nag dolaat yëpp mën naa ko fay maa ngi nuyu tamit sama jigéen Xadijatu Saw borom White House. mais jàmm merci jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf te Mohamed Soumaré Maaw. Maaw Maaw coupé ma kii. ilaha illallah seydina muhammad rasul <laughs> te xoolal du ay dóor du ay jaasi c'est la triste réalité te li may wax nii kilifa kër gi xam nañ ko